ay Auchan nga xam ne loolu multinationales yi nga gis yooyu français yi ñoo ko moom tu vois ce que je veux dire boobu amoon nañ benn idée boo xam ne amoon nañ ko par rapport ak discours bi nga xam ne doon na ñëw ci gëmloo ñu ni ñun dañuy débarrassé wu ci multinationales yi que dañuy tàqali France Afrique que ñun dañuy am liberté cest à indépendant dafa jot Afrique indépendant léegi loolu dafa nekk loo xamante ni en su suñ ñëwee toog ci pouvoir ñu gis ñi ñu ko waxoon toog ci pouvoir bi te démarche yooyu noonu seen démarche ñun gisuñu ci loolu maanaam xam on a on n'attend pas en à six mois. doxewuñ ko yi tamit. moom laa lay wax xam nga gars yi souvent. moo wax day leer gars yi sax dañuy fii juróom-benn weer dafa am kii kër googu non waxuñu que dafay réglé si juróom-benn weer. waxuñu dañuy tàqalikoog. Euh, waa France ci juróom-benn weer waxuñu dañuy tàqalikoog système bi ci juróom-benn mais démarche fait. les démarches moom laa waxoon la fois passée moom laa loolu mais nekkul sax si yoon bi donc loolu moo tax ñun dafa bëri yoo xam doon nañ ko xeex avant ñu koy gisaat te pour man heure bi waroon na fekk ñu xaw a sori ci wàllu woowu noonu. d'accord. tu vois ce que je veux dire loolu laa wax si conférence parce bokk na si point yi mu souligné wax ni fii Macky Sall doon dem ngay dem fi mu yaakaar xaalis nga yaakaar xaalis FMI banque mondiale système yi xam nga euh, donc may laaj en réalité y a y a même qui disent ay non c'est la première fois francophonie xam nga euh, sumay francophonie président Sénégal demul quoi mais yóbbu. am na ku représenté Sénégal foofu <laughs> tu vois ce dafa ay affaire yoo xamante ni xam nga. ñu ngi ciy dox voilà cest à man foogoon ngeen ne ñëwee rek dafay am. rupture mais est-ce rupture totale war na dina mën a teel a am ci jamono ji surtout si 6 mois yi ñu def. rupture totale mais mais mais démarche yi rek day wane ndax pare nga pour def rupture ou pas yenn choses yoo xam ne on les négocie pas. Ajara loolu na nekk ak li ñu fekk ci état. les réalités de l'état aussi. Ajara hmm? indépendance. on le négocie pas gis nga man principe yi ma gëm man se débarrasser de ces de ce Babylone là de se de se de tout ce qui se passe actuellement mooy rup mooy wala engagement bu radical engagement yi ñu jëloon ñu respecté ko quoi au fait ñun loolu la wax quoi dañ ne ñu jëloon ko wala ñu nekk ci démarche yi sax quoi. pour ko xel mën a daal. voilà parce que bu ñu demee ba justice bi par exemple parlons de la justice par exemple. ñu dem ba ñuy arrêté ay nit leen interpellé nga gis ay procès verbal yoo xam li ci fuité mooy lan moo tax ngay weddi waxu premier ci ñun ak li ñu daj yëpp ak injustice bi ñu dund Sénégal ñuy arrêté ay nit ay opposants yoo xam dañu nekk ci ay liste mais ci noonu sax ci sa conférence de presse bi yaa ngi ciy indexé ministre de l' ak ki nga xamante ni moo di Ousmane Diagne. waaw daal mi waaw waaw c'est ñoom en réalité. boo boo seetee li may expliquer foofu c' est très dama ni rek. waaw dama ni Ousmane Diagne qu'on respecte beaucoup nga xam ni ñooñu seen carrière dafa mus a rafet. Hmm. Jean Baptiste Tine carrière am dafa mus rafet. papa boobu man dama ko respecté naw ko ba nee naa maa keroog ma ni profil la moom profil la moom. Mhm. man fotom def naa ko sama profil Facebook presque deux ans xaw ma un an. tellement dama naw Jean Baptiste père Jean Baptiste Tine. tu vois ce que mu nekk koo xam ne ñëpp xam nañ ko intégrité bi nekk ci moom. Mhm. xam nga xoola ni mu nekkee noble ni mu jubee ni mu ragale yàlla quoi papa noonu. kooku ñëpp a xam paaw ni mu amee diine quoi ni mu ragalee yàlla. pour yow dafa wàcc yoon catholique c'est un waxuma dafa wàcc yoon. Ah. mais am na engagement yoo xam ne mi ngi ciy koy demee bu ñu moytuwul loolu ça risque yàq li nga xamante ni moom moom la jotul liggéey ci ginnaaw. te ñoom waruñu nangu politique di yàq li ñu liggéey ñoom seen carrière parce que général c'est pas n'importe qui loolu laa ma ni ma ne ko pour mu démissionner ci gouvernement bii nii. Ah parce que le Sénégal a besoin de ces genre dimage là boo xam ne du yàqoo nii du jeexee nii. nga yaakaar ni en tant que ministre de l' intérieur du du teg. li nga xamante bu continuer ak li ma gis système bi ni muy doxee nii image am nañ ko yàq li mu liggéey dina yàqu. te c' de même pour pour pour pour euh, Ousmane Ousmane. Ousmane Diagne bu ministre de la justice. Mm. parce que justice en réalité gars réforme yi ñuy wax et tout ce qui tout passe ñoom dañu waxoon ne ñoom du ñu libérer mënuñu intervenir ci justice parce que dañoo bëgg justice bi indépendante il faut ñu def réforme yooyu loxoy nekk ci justice bi. mais bu ñu demee di interpeller Yirim Seck di ko laaj la moo tax. muy contredire muy contredire ay chiffres. mais jotuñu benn plainte bu jógee fële ah. d' accord mais li interpeller loolu fan la jógee. ministre de la euh, euh, le gendarme ou le policier le procureur moo koy moo koy jox kii. comprendre nga jox ne ko réquisition ne ko demal nga doxi li le procureur kan moo koy jox kii moom ordre. mais est-ce que est-ce que. non mais ab uh-huh. jamono ji ñoom ñu ngi jot ay ordre yoo xam dafa jógee ci exécutif bi. xam nga lu tax. waaw ko dindi parce que li fi nekkoon jugu fi. parce que toujours ministre de la justice mi ngi dépendre ci ci ci ci ministre mi ngi dépendre ci président bi parquet bi mi ngi dépendre ci ministre de la justice. nga jàpp ne Ousmane Diagne ñëwul di def liggéeyam te seetlu. ñu ci loolu non Ousmane Sonko moo taxaw ñëpp taxaw di ko xool mu ne Ousmane Diagne war na ko vidéo bi ne ko ndax ma jàpp gi. ñun ay xam rek lañ koy indi la ñun <laughs> waxuñu moom moo ko wax au fait. Thiaw mais li ni c'est comme si euh, danga nga commencé weddi nguur gi fi nekk. non du weddi c'est-à-dire xoolal dama wax ma ni man sama devoir. ñun ah. suñu devoir ñun sax lay wax. mooy éveiller conscience yi. mooy leeral sénégalais yi fi nga xam ni fa la am ñool-ñool li desee leer lan la ñu waxoon démb fu ñu toll tey ñun loolu lañ bëgg seen ñun foofu lañ tax a taxaw ak Sénégal loolu mooy suñu rôle ñun ñëpp mënuñu dem ànd ak pouvoir ñëpp mënuñu dem nekk ci opposition. il faut mu am ñu ànd ak peuple bi jëlee éveiller seen conscience di wax ni. pouvoir bi fi nekk voilà rappel. ça profite aux croyants xoola ne ah li ñu kat waxoon nañ ñu lii waxoon nañ ñu lee ñii kat ba ñu taxee fii lii lañ waxoon ñii bañ taxee fii ah fi ñu toll nii kat fii lañ toll ak ñun te pourtant lañ waxoon lii weddi nañ lii tey lii lañ taxawee ñun loolu mooy suñu devoir ñun. moo tax moo tax nekk activiste yombul équidistant yombul yombul moo tax il faut nga nangoo il faut nga nangoo takk sa biir pour le takk sa biir pour le combat ay principe sénégalais xamul principe sénégalais li mu xam mooy ànd nañ xeex nañ séddoo après nañ pàccoo. ànd nañ xeex est ce que pàccoo kon pàccoo boobu nga sentir. ci gouvernement bii nii non non cest à exemple laa man gis naa. d'accord cest à man li ma gis laa wax dama lay wax ne la man li ñu may wax laa lay wax. fu ma dugg non yow da nga xeex danga war a dem nekk député danga war a. arrêté arrêté ñoom pour ñoom nekk député. naan xeex bi jeex na da nga war a man xeex moo fi jeex pour ñoom nekk député pour fayee ko la am ay papa diplôme nekk député du loolu nekk député pour jaamu yàlla la pour xeexal sa réew la ñun député mun nañ ko nekk gratos moom lañu mus a nekk san benn privilège ñu nekk ko mooy di représenter le peuple sénégalais il faut ñun loolu lañ jàppoon ni bu régime bi bu ñëwee loolu lay indaalee ay nit yoo xamante ne ñoom dañuy xam ni au fait nekkuñu député pour Macky Sall nekkuñu député pour Diomaye nekkuñu député pour kenn dañu nekk député pour le peuple nekk des députés au sens du représenter peuple sénégalais bi foofu ca pencum ndaw réew mi tu vois ce que donc loolu loolu moo tax ma ne ñun dañ doon xeex pour rupture totale dañ doon xeex pour changement dañ doon xeex pour ay démarches yoo xamante ne dañuy xam ne justice bi day indépendante. rupture totale salaamaaleykum salaam rupture am na. non loolu ngeen doon bëggoon. wala ci quelques mois ngeen gis. ni ñii kat ñu ngi dox ci wàllum rupture. bu ñu nekkoon ci loolu. waaw bu ñu nekkoon ci loolu rek duñ arrêté kenn tant que defuñu nag xam nga ay délits d'opinion ñu lan lañ fa dajul ci délit d'opinion mais man li ma gis ne ay règlement de compte la te man foog naa ne Sénégal dépassé na ay règlement de compte politique règlement de compte. règlement de compte politique la kay. règlement de compte politique la te ñun loolu man foog naa ne dépassé nañ ko vraiment xam nga lu Sénégal dañoo sonn ajara ajara Sénégal Sénégal quatre ans wala cinq ans Sénégal topp nañu indil Ousmane Sonko am Macky Sall am Macky Sall jàppal Adji Sarr am Ndiaye joxal Diop jàppal diw procureur xam Diallo. deuxième cabinet premier cabinet Sébikotane Rebeuss. xoolal nit ñi di dee c'est-à-dire ans kenn nelawul Sénégalais yi dañ leen traumatisé mais gis nga bi ga bi ñu xeexee ba Macky Sall dem bàyyi ba ñu voté ba ba mu dem nit ñi dañu soufflé ba ñu ne alxam c'est-à-dire parce que dañu sonnoon quoi mais noppalu wu ñu six mois sax amul réforme amul dara ñu bëgg nekkaat ci jàpp ay nit ay délit d'opinion jàpp nañ Bougane arrêté nañ diw jàpp woon nañ Cheikh Yérim Seck bëgg retourné waat ci et nga xam ne lii au fait li c'est des règlements de compte politique yoo xam ne loolu amul benn njëriñ Sénégal. booy jàpp ma da war a jàpp ñi rey mais fenn quand même. non mais woo nañ leen déglu leen delloo leen. mais def nañ ko quand woo bi au fait moo warul woon sax ci ay délit d'opinion. Euh, cest à dafa am loo xam ne warul ñu fi nekk tey. parce que fi ñu jaar la. pour liberté billaahi fi jaar la ñoom fi jaar la. ñoom ils ont été arrêtés juste par ay ay tweet ay parce que dafa posté Facebook. mu dund cellule xam dund fanaan ak ay nit gis ñoo xam dañ leen tooñ tëj leen moom xam na nekk si kaso bi ñoom dund nañu injustice boobu noonu mais est-ce que ñooñu war nañ taxawaat di utiliser justice boobu noonu pour arrêter ay adversaires politiques ñoom bu ñu déggee automatiquement ñu ne woo nañ diw rek ñoom dañoo war a jug taxaw interpeller réforme amagul dara amul mais mais réforme euh, interpellé googu noonu lañ ci bañ xay na par euh, bañ a dugal seen loxo ci wàllum justice bi justice mooy doxal nañu bàyyi justice. mu def doxal lan lay lan lay doxal ay euh, weddi weddi premier ministre contredire ay chiffres yu mu joxee ne loolu loolu déli la ci loolu la justice bi di doxal nañuy waxtaan rek. Kader Kader Kader bu le chroniqueur là de Sen TV loolu la wax dafa ni booy bi ñuy dem. si gaal gi. mais loolu jotewul dara ak premier ministre bi quand même. non tax der yi la la noonu indexé. Euh, non dégg nga muy dama ne. waaw ah. cest liberté d'expression boobu noonu. mais liberté d'expression bay indexé wala ngay taxé nit de corru surtout ay takk der de corruption. déggul mu la. waaw Kader li mu wax dafa simple. dafa ni booy est-ce que dégg mu baax booy yi dañ ko wax ni ko dañ ko envoyé audio waxu ni ko ñoom bi ñu ne ay policiers ñoo leen jàppale pour ñu dem mais gars foofu lan mooy problème bi ñun ñu toog auto police ñëw taxaw dugg fekk jaa jaaykatu yamba bi jàpp ko jàpp drogue bi yóbbu ko tuuti ñu gisaa jaaykatu yamba bi ñëwaat ci kër gi. Ah bon. loolu yàgg na Sénégal de kan moo ñemee wax Sénégal amul corruption kan moo ko ñemee wax. ci ay takk der. mais fépp réew mi corruption yàq na ko. Diomaye ak Sonko dañ doon xeex wax naa ko laa fa passé maa ngi koy wax maa ngi ciy insister waat commissaire Keita mag la ñun faluñu gouvernement pour muy fayantoo faluñu gouvernement pour muy pour muy. pour muy jàpp ay haine di fayantoo nekk ci ay dañ leen fal pour nit ñi dëkk bi dafa metti Sénégalais yi dañ nekkoon fayantoo la non mais fayantoo commissaire Keita ñëpp ko mere man mii di wax yow commissaire Keita may ma dara man commissaire Keita neexu ma ñun doon defee ñëpp gis nañ ko waaye di bi ak ñi mu doon acharné woo mais est-ce que ñun yow boo demee ba toog ba gouverner ak li fi xew yow est-ce que waroo jéggale est-ce que waroo jëlale est-ce que war nga jël utiliser pouvoir bi dem di xeex ay nit yoo xam ni ils sont impuissants commissaire Keita lan la mën a apporter lan la mën a yàqal état du Sénégal koo xam ne bi ngay nekk opposition mënul si yow dara nga nekk pouvoir lu lu mën si yow. d'accord alors est-ce que donc man dama bëgg ñu wax si commissaire Keita bu baax a baax commissaire Keita na ko na ko nañ bàyyi jàmbur mu dellu ci njabootam mag la nañ bàyyi jàmbur mu dellu si njabootam. lii xaaruñu ko woon quoi ñun xaaruñu woon fal gouvernement boo xamante ne dafi nekk di xoolal di tooñ ay nit di leen jàpp sàcc yaa ngi fi reykatu nit yaa ngi fi ñu ngi nii le plus grand criminel de l'histoire mu tête de lañ ko def mu nax leen comme xale. kan la Macky Sall. ah xam nga loolu. Macky Sall nga wax le grand <laughs> moom mooy